tellement de Pastef actuellement yoo xam ne ñu ngi ci biir kaso bi euh, président Sall euh, xëy na il n'y est pour rien c'est la justice mais ñoom ils y voient euh, pour gage bonne fois est-ce que jaaduwul woon tey jii ni avant ñu dugg ci waxtaan woowu noonu ñu xaw a yolomal tuuti loolu xam nga dama naan toujours mënuñu taxaw ne dañoo bëgg yoon ñu doxal yoon mhm. ba pare euh, ne dañuy gàllankoor dañuy tënk yoon damay jox benn exemple boo xam dama ko xam suñu toogee nit jël rajo ñëpp di ko dégg mu ne ñun am nañu suñu bëgg-bëgg li ñu bëgg dañ koy def suñu ko deful xam nañu responsable benn doo ko yaakaar kenn ku ci nekk sa kër suñu amul li ñu bëgg wax naa ndigal wala sama bëgg-bëgg mooy ñu dem fekk leen seen kër lakk seen kër ñoom seen bopp ñu lakk leen jëppit ba ñu dee xam nga loolu est wax na loolu wax na loolu wax na ko. kan ma ko wax bëgguma àgg ci. Ousmane Sonko déedéet wax déedéet Ousmane Sonko dégguma. kenn ci ñoom kenn ci ñoom ci xale yi. xam nga nit su taxawee ne li ma bëgg su ma ko amul ñaan naa leen ngeen dem fekk responsable majorité bi ngeen lakk seen kër ñoom seen bopp nga lakk leen bu ñu ne jëppit. Mhm. kooku ñu jàpp ko nga naan bu yoon def liggéeyam xam nga nit ki su defee dara lu toll noonu tuuma lu toll noonu. lu mhm. rëy lu toll noonu. li gën na rafet balaa ñuy def dara. Mhm. mooy kat kooku kooku ko def ñu ne dañ koy ne day jéggalu dama juumoon damay ñaan njekk pour ñu mën a continuer ak waxtaan waaye doo wax wax ju rëy jooju ba pare ba pare ngi ñëw taxaw naan nañ la génnee te du looy rëccu parce que mën nañ la génnee nga defaat lu ëpp loolu la. Mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen. procureur dafa def conférence de presse. procureur général ànd ak procureuru Dakar ak procureuru Pikine mu ne dañu jàpp ay nit yoo xam dañu amee ay ngànnaay ñii amee ay tooke ñii doon waxtaane seen biir naka la ñuy ñëwee pour lakk ñu jàpp leen xam nga ñooñu ñu jàpp ñu yore ay ngànnaay pour lakk war a dugg ci ay nit ñuy defar dara euh, di manifester ñu profité ci dugg lakk këru jàmbur gis nañ ko bii paase rek. Mm-hmm. xam nga lakk kër euh, du lu yomb ndax ay ay ay ay ay ay tooke la. bu ñuy dugal essence ci biir taal ko soo ko sànnee ci biir kër essence bi lakk ko. wala cocktail molotov waaw xam nga loolu ay nit suñ ko defee ñu jàppaleen ci di leen ñu leen ñuy gëstu te pareeguñu ci ñu naan ay détenu politique la xam nga loolu yanuwul maanaa yanuwul maanaa. Mm-hmm. détenu politique euh, ni ko président waxee euh, am naa jàpp naa ne. am na lu bëri ci ñu ko waxee su noonu lay demee. mais ñuy jàpp du rek ñi nga xam ne xëy na dañoo attaqué kër jàmbur am na ñoo xam ne seen kàddu lañ leen jàppee am ñoo xam ne ci ay transaction yoo xam ne euh, doon nañ ko dimbalee parti bi ñu mënee leen ci ci lañ leen tegee loxo loolu yëpp aussi dafay xaw a tey xel. waaw xam nga man damay lu ma man dama naan toujours man li ma xam rek. laa mhm. mën a wax damay joxe ay exemple man dama dama di avocat bokk ci justice. Mhm. soo taxawee xam nga mën nga ne justice. am na nu muy demee d'accord naa ci nu muy demee d'accord ma ci nu muy demee xam mun nga wax loolu mën nañu parce que ñun ñi nga xam ne ne bi dañuy avocat wala ñuy liggéey ci justice su tribunal attee ba pare loolu mu attee am nga sañ-sañ critiquer ko ne d'accord ma ci mm-hmm. wax lu tax d'accordoo ci xam nga man am naa ci sañ-sañ yoon moo ma ko may waaye soo taxawee ñi attee nga saaga leen ne atte wuñu dëgg du ñu ay nit ñu jub ay naafeq lañu xam nga loolu soo ko waxee nit ki Barthélemy en avait fait les frais yaakaar naa ba tey xam nga loolu ku ko mënti waxit taxaw ñiy atte ay naafeq lañu atte wu ñu dëgg ëllëg su ñu ñëwee dinañu ko dégaale ak ñoom attekat yépp nga xarab attekat yépp nga teg loo xam yoon da koy tere ñu téye la ci xam nga yomb nañu naan naan délit d'opinion mooy délit boo xam ne bi sa xalaat lool loolu dootul xalaat xam nga saaga nit làmmiñ la mhm. ay kàddu la du jëf dooy ñëw jël yet di dóore waaye taxaw saaga nit wax nga dama ko xalaat xam nga nag xalaat nit wax ko lu bon loolu lu bon loolee nga wax nit loolu dañ ko dul nangu. surtout